poste bi moo xam ne lu mu namm ci poste bi incha allahu rabbi di nga ko defal parce que am na ci yow confiance te xam naa ne juuma loolu moo tax nag kontaan nañ torop maa ngi nuyu les collègues maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di beral nuyoo bi nag à l'honorable député maire des Agnam honorable Farba Ngom monsieur le maire des Agnam fii nga war toog da fees dell sa place fii nga le Fouta est fier de toi le Sénégal est fier de toi mais son excellence Macky est fier de toi l'honorable député pour nga xam sa place fii la ne defoo dara lu tax sa place parce que l'honorable député Farba s'il vous plaît s'il vous plaît l'honorable député Farba xam nga lu tax danga war a toog fi demoo maasuwi ji nga def say njaaxum ba pare woo sénégalais yi mortel combat nga ree quatorze zones sénégalais yéene nag néeg la borom moo cee fanaan tontu nag du forox man xamoon naa ni dinaa jël parole tontu ji justice sénégalais wallaay justice sénégalais yàkkamti woon suñu yàkkamti woon di nga xamante ni am na ñi nga xamante ni ñu ngi seen kër tey waruñu fanaan foofu loolu moo tax suñuy xool ci loolu du yow lañu war a monsieur le ministre de la communication le département de Kanel a 12 collectivités locales macha les 11 collectivités locales macha il n'y a pas de problème de communication il y a am problème de communication rek mooy maanaam la commune de Ndendori boo wàccee tali weer suis euh, foofu moom amul dara réseau le forloo de foofu tamit monsieur le ministre black out amul dara Dande nag suñ fa jógee foofu euh, région Mauritanie la ñuy jàpp Mauritanie nag macha allah amuñu benn problème ak ñoom waaye suñu sañoon ñu utiliser suñu réseau réew loolu moo ñu gën gis nga am na ay député yi nga xamante ni yàlla su tracé nga effacé yàlla tracé war nga effacé yàlla dina la merci honorable collègue. honorable député Aminata Gueye se prépare. honorable député Mohamed Aïb Daffé se prépare. Honorable député Mohamed Aïd Dafé ce Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre du Travail, collaborateur de ministres